salaamaaleykum euh, patriote yi ziar na bu baax di leen nuyu donc keroog def naa benn vidéo bu am solo ma ni leen patriote yi ñun bu ñu def comme waa APR ni ñu doon def waa ñu doon def mooy boo jéppee nit sax bind sa page bu diw recherché wala diw dëkk mi ngi recherché diw diw mi ngi def lii maanaam wax jooju noonu jëf yu salte yooyu noonu moo taxoon Sénégalais yi dem ba jéppi waa APR yi waccu waccu leen jëf yu bon yooyu noonu Anita di ko def. bu génnee posté dara waa APR yëpp partage ko rek dig ak procureur gaa yi dem jàpp kooku indi ay nit ñoom defuñu dara da ngay jëpp nit ki rek bind sa koñ sax bind wax ci loolu ñu dem jëli nit ki tëj ñu bëri def nañ onze mois prison ñi def dix mois ñi def sax un an prison ci façon mbir yu demee noonu am na sénégalais yoo xam te loolu moo leen naqari ñu jàpp seen nit ba tax ñu bañ Macky Sall maam liggéey boobu noonu nañ ko ba ndax am na ñoo xam te ñi ngi bokk ci ñun commencé di def façon yu demee noonu te dara jaru ko fi jépp nit ki wala bañ nit ki wala am en booy jàppal nit ki bu mu tax ngay sos wala di wax loo xamante ni nekkut ñun façon politique boobu buñ ko def nit booy roy ci moom da ngay roy ci moom ci lu baax. Anita jëf ji bon jooju mu doon jëf moo waa APR ñun bu ñu leen roy ci loolu maanaam bëgg a jël position wala bëgg a taxaw di Anita Anita la comme ni ko gars yi di waxee di Sonko Sonko la wala di def yeneen yi am ñoo xam te ne ñu ngi bëgg a jël place su Pape ñooñu damay dama leen dama ñooñu dama bëgg ñu continuer parce que Pape Alé Niang ko rey da nga koy rey ci lu baax ndax ay information yu vrai yu juste yu nit mosul dindi loolu la doon joxe. donc ñun nañ roy bu ñu roy nañu roy lu baax mais di roy Anita ci jëf ju bon ju bu doon jëf loolu amul solo amul sens loolu ñun waruñu dox ci loolu te ñu xam ni réew mi dañ ko bëgg mu soppeeku soppeekoo tax ñu xeex ba yegg si fii am am na am na ku bind su comme ne suñu mbokku patriote la muy Boubacar Sow bind na wax ni. Ousmane Noël ñu ngi ko dañ ko arrêté gis naa ñëpp di ko partagé fu nekk arrêté nañ ko aéroport bu xaw ma fan ñu ngi koy acheminé xaw ma nangam nangam bon Ousmane Noël dama ko xam c'est mon ami sama xarit la wax dëgg yàlla sama xarit la. dama ko woo téléphone rek mu décroché mu demee noonu mu expliqué ma yoon vidéo bi naa ko dugal ci fin bi pour ngeen xam ni fan yooyu aussi def nañ ko ni Ndoye Bane et Mout Bane recherché par la police fenn kese dara du ci dëgg pour lan. pour lan recherché par la police ñi maanaam maanaam création yooyu fenn yooyu noonu pour lan. pour lan loolu la war a bàyyi ñun bu ñuy joxee information wala lu ñu def nañ ko def ci dëgg ak ci fulla ak ci fayda bu ñu tooñ doomu jàmburoo ñu bañ nit tax ñuy def yenn yi amul solo amul sens fii dëkk bi politique bi ni mu demee nii justice bi ni mu demee nii duñ fi arrêté wala ñu def fi nit ñu def fi nit loo xamante ni defu ko ñu téye nit te deful dara du am ci justice bii nii justice Macky Sall la amoon loolu jeex na ci Sénégal loolu jeex na Sénégal te ki def post boobu tey ñi ko bind tey bu ñu leen toppoon tey rek mu indi maanaam Ousmane Noël mun na topp ki def poste bi xam na ko euh, ñeneen ñi ma tudd Ndoye ak Mout mun nañ topp ñu def poste boobu noonu mais jaru ko nañu roy bu ñuy roy nañu roy lu baax te ba bañu roy ñi nga xam te ni Anita moom patriote bu ne mun nga roy ku nekk ba mu def Anita ci jëf ju bon ji mu doon jëf di ko ci roy loolu moom musiba la donc bu ñu joxee information na nekk ay information yu vrai